dem nga gis nga sa jëkkër nekk ci situation yi gisoo dara lu dul mu génn nga dellu sa kër toog ak sa wujj ne damay jàkkaarloog askan bi jàkkaarloog njiitu réew mi ñaan ko oui d'accord c'est vrai metti na waaye Awa Condé réew dafa am yoon Aliou Sow nga am solo mandat le mandat nee na du gatsa gatsa au massa massa Aliou ba bu gisee ma wax loolu c'est parce que dañu ne ay du xawma lan euh, ci boppi borom. ay du yam ci boppi borom ay du yam ci boppi borom. au départ il y avait beaucoup de coow en voilà un d'opposant qui a décidé à un moment donné de faire de la politique autrement. Autrement comment? En utilisant des stratagèmes yi nga xam ni kenn mësu ko woon seetlu ci réew mi xaste giiñat werante ay wax wax ay wax yu ñaaw à l'égard justement de l'État du Sénégal mais surtout euh, vis-à-vis euh, du président de la République ci est élu par une majorité de Sénégalais te diiram jeexagul ñu waroon ko jox cëram jox ko warmaam c'est vrai on dit que on est dans une dictature man de taxaw naa ci mbir béréb di waxtaan nag intellectuel ci télé boroom xam-xam ma ne ko si on est dans une dictature est-ce que yow mun nga waat ni Macky Sall et un dictateur mu ne ma du dictateur waaye ce n'est pas un démocrate ma ne ko pourtant yaa ngi wax dictature parce que dictature ki kay doxal cim réew mooy ki jiite réew mi un coup nee nga ma on est dans une dictature un autre coup nee nga ma ni non non non ce n'est pas un dictateur waaye ce n'est pas un démocrate non plus mais qu'est-ce que c'est qu'un démocrate dans un pays en construction qu'est-ce que c'est qu'un démocrate ci dëkk boo xam ne dañ koy tabax est-ce que dans un pays boo xam ne dañ koy tabax nit ñi war nañu wax lu leen neex est-ce que war nga critiquer gendarmerie est-ce que war nga giiñat gendarmerie est-ce que war nga giiñat alkaati est-ce que war nga giiñat armée est-ce que war nga giiñat magistrature mais béréb bu nekk am na ay euh, brebis galeuses c'est normal loolu fépp la am ci réew même dans les grandes démocraties ok on ay ay démocratie bu jeune la ñu doon waaye ñi ngi góor góorlu di avancer réew mi te réew mi kenn mënul wax ni dictature am na fi ce n'est pas possible parce que sinon ma laaj la lan mooy dictature en voilà donc deux femmes alertés par la situation de leur mari ñëw nañu taxaw di wax c'est bien j'étais man touché parce que man sama problème ci réew ci àdduna en général mooy jigéen man warul am métit hmm. mooy xale warul am métit moo tax mënu ma supporter taalibe mënu ma supporter doxalin dundu taalibe yi nii nii nii mënu ko nangu man su ma ko mënoon day day dañ par force mooy mala pour man ñooñu dañ leen war a bàyyi xel te xool leen réew bu ñuy toppatoo jigéen di toppatoo xale. di toppatoo mala réew moomu day avancer seetlu leen ko. c'est vrai day avancer bàyyi leen ci xel donc forcément quand je vois deux femmes taxaw wax seen xalaat ci réew mi wax seen xalaat par rapport à la situation de leur mari demandé ko je me dis ni mais mesdames pendant que votre mari moment bi seen jëkkër doon wax yenn wax yi yéen fan ngeen nekkoon. Hmm. yéen moment bi seen jëkkër. di wax yenn wax yi ci réew mi mu woon ni moom kese nekk fi opposan donte nag am na niveau bu élevé par rapport à une sympathie euh, euh, d'une certaine frange de la population est-ce que moment boobu mu doon wax yenn wax yi am na yeneen opposant yu fi nekk Thierno Alassane sal opposant la Thierno Bocoum opposant la juge Dème dafa bàyyi dafa dafa bàyyi dafa bàyyi magistrature dafa gedd parce que neexu d'accordul ak fonctionnement réew mi ni muy defee ni muy doxee surtout la magistrature Thierno Alassane Sall moom dafa gedd avantage am yëpp. ñëw taxaw jàpp ñaamuram di opposé wu ak yeneen opposant yoo xam ne ñi ngi ci réew mi di opposé wu mais doo leen dégg ñu wax yenn wax yi doo leen dégg ñu ne ki nga xam ne dañ kaa fal à 58 pour cent muy président de la république ci benn diir mu war a dem ba 2 avril 2024 kooku nit ne na man dama bëgg ñu yegg ba pale buñ ko jàppee dañ koy daggati comme ni ñuy def Samuel Doe daggati comme ni def Samuel Doe ngeen dem xool nan la ñuy def Samuel doo ku nekk président la République ku nekk président Sénégal bëgg nekk président moo ne kii fi nekk nii ci nguur gi doot ñu ko xaaral ci dañuy dem pale il faut ñu def ko comme nu ñu def Samuel doo man ma ñaan leen ngeen dem xool nan la ñuy def Samuel doo dañ ko taxawal di ko muy xoole ñuy dagg nopp yi déglu ma il faut mu leer ñuy dagg nopp yi di dagg yenn cëram yi di koy daggati muy yuuxu di yuuxu ñu koy traîner ci mbedd ba pare taal ko. mais Macky Sall waxoon na fi il va déloger le président euh, euh Wade. accord léegi yow nekk nga di ma comparaître ku ne damay déloger diw ak ku ne dañuy dem daggati diw. wala non déet daggat déet mais mais Aliou déloger. non déloger lu nekk mën na fa. fekk lu nekk mën na fa xew. non dama ne déloger. waaw délogé. lu nekk mën waaw non waxuma loolu de non waxuma délogé lu fa nekk. mais ma ne la mën na fa xew ma ne la léegi. parce que bu nit bu nit ki amee passion. parce que la passion est dangereuse. non dama ne. quand la personne a une passion. Euh, mën na lu nekk mën na ko fa def. Euh, teewoo teewoo. waaw dama ne. boo bëggee jiite réew. waaw Macky Sall loolu mu waxoon noonu déglu ma rek. mais ma yegg non je termine waaw termine je termine Macky li mu wax. Mhm. loolu du du du sax lu ñuy lu ñuy werante baax na wala baaxul. mais ñaata yoon laa ko fi wax il faut aller faire du var ah, ci li ma ko critiqué loolu wax boobu. wax bu ñaaw boobu. loolu kenn du ko wax cim réew boo bëggee déloger nit da koy déloger démocratiquement. cela cela va sans dire mais dama ne mbir mi dafa gën a garaaw léegi ci réew mi. dafa léegi ay daggate lañ lay wax ay taal ay cocktail molotov léegi ay ay ay ay ay dem leen ci kër jàmbur yi ngeen ngeen génnee bagage yi am ngeen doole xeex leen. man loolu dégguma Thierno Alassane Sall. mais am na ñeneen ñu wax nañ ko rey benn yoon. non de ko wax non ba dama ne xoolal. Ah, am na ñooñu ñooñu ñooñu ñu ngi téye di dox seen soxla. xam nga ki wax loolu sax yaa aussi benn affaire boo xam ne moo am tey Sénégal mooy benn benn benn injustice boo xam ne. mais dama ne quand quelqu'un est est du eh, côté de de de X. une comparaison des gens qui qui qui insultent des magistrats des autres autorités qui insultent des magistrats. xam nga kooku on dit respecter les institutions ils insultent des magistrats. pourtant ils circulent comme ils veulent. ils sont pas inquiétés au nom de quoi je termine xam nga on est dans une république on doit euh, il doit avoir mais les gens doivent être euh, d'égale dignité alors il y un monsieur mhm. qui ne vaut pas grand chose qui a dit une bêtise koo xam ne xamuñu sax ay jabaram ba mu ko waxee am na ñoo xam ne sénégalais boo leen ko tegaloon sax xàmmeewuñ ko kooku wax loolu boo ko tegaloon fii tey sénégalais nga ne kan mooy diw boobu xëy naa sax mun nga dégg turam rek waaye xàmmee sax doo ko ko def ki waxoon nañu rey diw nañu rey Ousmane Sonko. waaw boo déglu ma rek boo ko tegoon fii tey jii nii kenn xamu ko ce n'est pas forcément de la même trempe donte c'est hyper déplorable wax boobu te loolu wax naa ko fi waaye mënoo comparer loolu ak quelqu'un boo xam ne yàlla mën na def mu nekk président de la république. Mhm, te ko ku bëgg a nekk président de la république dama lay wax rek ce n'est pas comparable ak ki nga xam ne tey jii nii boo ko tegoon fii bu ñu tegoon ñetti nit fii mu nekk seen diggante mu nekk troisième personne bi kan moo ko fi waxoon duñ ko xàmmee. xam nga di nga xam ne parce que ça n'a kooku amul valeur amul sens amul tour amul coogi moo bari nii rek ak wax bu ñaaw boobu mu wax noonu. Mhm, waaye li am solo mooy ki nga xam ne moom il a été troisième ay une élection présidentielle war a mën a nekk un jour président de la république def ay élection am euh, un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale kooku mën na nekk président de la République. mais est-ce que devant la loi dañu war a segg. parce que xoolal xale bi taxawoon Mbàkke ne dem dem leen taali wal fajri. kooku dañ ko mës a woo. non yaa ngi wax beneen wax. Ah, si parce que tamit citoyen. non xam nga le soubassement de tout ça. c'est la justice. Ah, justice bi xam nga xam nga ñun justice bi moo war a. moo war a mhm. tëddee njaxanaay mooy citoyen bi. am justice justice justice. xaaral dama ne xaaral c'est-à-dire que dama ne le soubassement de tous ces mhm. yëpp bi. parce que c'est-à-dire que boo demee tey yow nga nekk d'un don côté don bord. Mhm. yow nga def waxal li la neex defal li la neex kenn du la inquiété. ñun lu ñu bëgg mooy dëkk boo xam ne ku nekk. mu nekk ci yoon. mooy c'est-à-dire kenn koo xam ne même bu nekkee sama boor mu wax naka su dul noonu. ñu teg ko ay daan ñu ñu ñu teg ko ay daan. mais bu fekkee ne te te li continuer nii tey. Mhm. capitulation nag am na au plan de stratégie politique mooy de de de gatsa gatsa. quatre appuis à terre. parce que tamit. aucun pays li may wax ne sa construit dans la violence. d'accord des deux bords tout le monde a fauté. d'accord Théodo maintenant il faut que ñoom ñu reconsidérer seen bopp. d'accord Théodo c'est important. xam nga c'est extraordinaire parce que li nga li nga li nga conclure li nga mooy mooy moo ci am sens. Mhm. li nga conclure moo ci am sens. moo maanaam mhm. des deux bords. mais comme il s'agit d'actualité. Mhm. et on parle de deux dames qui ont parlé. ces deux dames là ci loolu laay wax parce que mënuma yaatal lépp parce que sinon ñu dem ba midi. su nañ dem ba midi amul benn problème ñu waxtaan ci mais dama la ne comme ñaari femme yoo xam ne dafa am lu ñu wax ma ne leen yéen yu mel nii Sénégal am na yoo xam ne bu balaa nga lijjanti ci biti ci biir nga ko war a lijjanti d'abord moi j'ai ma femme qui se permet de dire certaines choses mhm. man bu ma taxawee naa ko ne yow yow sama jabar dama bëgg yii ngay def ni nga bàyyi ko dama bëgg xal mais xale yi ñuy cramer ci mbedd mi ci ci ñaari kii ci ci ñaari bus yi ja sox soxna yooyu est-ce que xam nañu am na ñoo xam xale yooyu ñaari xale yooyu am nañu yaay. c'est vrai Aliou Sow am na solo. wala boog mais waxtu bi xoj nañu Aliou Sow ñu jaajëfal bu baax a baax si liggéey bu am solo donc on se donne rendez-vous euh, demain incha allah. ci kàttanu yàlla. yaa ngi ñaxtoo xeet nag.